jigéen yi nekk ay doxkatu jàmm ci quartier yi ci kër yi di gunge ak a taxawu jigéen yu wéru yi gone yi di amal ab liggéey yu jéggi doyo ci bërëbu fajekaay yi di jàngale itam ci wàllum soreel njur ñoom nag di ay bàjjanu gox jiitu réew mi moo ñëw di leen sàggal ci liggéey bu am solo ba ñuy matala ci gox goxaat yi occasion la pour man wax leen lii ñu wax hommage muy kañ leen ak won leen sama reconnaissance ci seen liggéey loolu yéen a koy def jëmale ko ci yaay ak doom waaye tey liggéey boobu gën ngeen ko yaatal ba mu jëm ci secteur yëpp yéen de da jàppale askan wi jàppale njaboot gi kon réew moo leen yoroon jukkal ngir gën a dooleel bàjjanu gox yi njiitu réew mi dolli na juróomi junni ci suñu koppar ca la ñu leen daal la weer bu nekk loolee nag day tax mu gën di ñaax yile bàjjanu gox ñu gën a sóobu ca liggéey ya ñuy matal ci gox yi. li ngeen liggéey liggéeyal ko Sénégal liggéeyal ko askan wi jar na ëpp fukki junni weer bu nekk pour bàjjanu gox bu nekk. lii nag aada bàjjanu gox di ku askan wi jox nopp ñu tànn leen ci ay quartier ngir ñuy gunge jigéen yi du leen jàngal nekk itam ay conseillère di jàppale jigéen yi ci seeni sëy ak lu ñeel seeni wérgu yaram bàjjanu gox di ab concept bu njiitu réew mu njëkk Abdoulaye Wade taboon